ay neng astafurlah yow de sama kii astafurlah yow sama yow sama kii nga sama gàmm nga lu ma nee wax la te bu boobaa danga koy kii rek ndax sama sœur nga yow lu ma la wax neex na la lu ma la wax neex na la bu si di dee calaw waaw parce que dafa bëgg kii temps maa yàkkamti que ay yéen a ngi ji waat. kii du nuyu yaa du nuyu yaa muslim moom yaa muslim moom moom ni ngeen may def. soxna doo xaar danga maa nuyu moom la kay. góor ndey penda waaw góor ndey penda. di mag di rakk ci tànday Mariam Seck ñu ngi koy nuyu sama tànt joojule hmm. ah, donc Idi Ndamal Kajoor dégg nga kàddu yi li kii yëkkati Talla Sylla. balaa maa wax kàddu ah, du nuyoo danga ne ma soxna si gaawal loolu nga ma wax di danga ne ma soxna si gaawal te nuyoo goo. auzu billaahi mina saytaani ngi am mbégte di am contentement. Hmm. ci teew gi nga xam ni teew nañ ci bërëb bii nga xam ni bërëb la ci biir bërëb yi Walfadjri muy Walfadjri di ñaanal borom mi mm. nga xam ni maa ngi koy fàttaliku Mbàkka ci diggante mag ak Mbàkka mu delloo si ma gàgganti ma loola nag di lu am solo waaw parce que bu fekkoonte ni waxut loolu mënoon naa bañ a tuub ndekete génn naa ci diine ji waaye alhamdulilah maa ci diine ji di dellu di rafetlu jotaay bi jërëjëf. Mm-hmm. ah gën naa mm. gën naa wax moom nekk fi woon sax defe naa dafa voyagé woon. Mm. Euh, ah, nan nga déggee li nga xam ne rek euh, moom moo di kàddu taal si lay tey moom dafa xëy ci yow rek. waaw taal la de day gone buñ jox tàngal bant. Mm-hmm. nga jekki-jekki bëgg a jëlaat sab tàngal bant jox ko geneen gone mhm. mu siisu <laughs> loolu rekk la de mhm. du leneen mhm. parce que li ma ko joxoon muy tàngal bant ba mu yoroon di macc di dem mu neex lool xam ni tàngal meew la taala di macc muy neex ñu seetaan ko mu macc ko daanaka mat na juróom-ñaari at muy macc tàngal ba mhm. parce que bul fàtte ni maire yi yokkal nañ leen yokkalaat leen mhm. ma ne ko taala bant bi nga yoroon laa bëgg a jël jox Yankhoba Diattara mu macc ah, mu ne déedéet lu ne mu wax ko nag ah, waaw naan ma dama doon tiijaan ngir intérêt jóge fa doon murit ngir intérêt jóge fa wutali Macky Sall ngir intérêt waaw damay laaj nag ana kan muy dund te dundut intérêt dëgg ci àddina bu ñu nekkee jullit di julli mhm. dañuy julli ngir la eh, ngir dem intérêt waaw moo tax ñuy woor intérêt bu ñu yàlla diggutoon pay du ñu woor bi ñu yàlla diggee duma ne ñu bu ngeen moyee ak lu moy ga fu mu neex neex bu dañ koy daw dëgg la mm. ndax intérêt ëllëg Mm-hmm. loolu mooy nit ki day dund ci njariñam mm-hmm. parce que bakkan bii dafa bëgg jàmm yonent bi bim ñëwee wax ñu mm-hmm. daf ñu yonent bi bim ñëwee wax ñu ñu topp yàlla borom bi subhaanahu wa taala dañ ne tekk di ko déglu mu wax ñu lam ñuy jariñ ëllëg àjjana ak neex-neex ya uur ay niya comme nu ko oustaz Alioune Sall di waxee sept cent femmes ya mhm. loolu bokk ci li tax mhm. ñu ne nangu nañoo julli nangu nañoo woor nangu nañ laa gëm mhm. waaye bu rocci woon loolu tey nga defee ne fu ñuy taxawee bu boobaa moo jara lijjanti kon mbirum intérêt moom Mhm. nit ki doxut lu dut ci intérêt euh, man damay wax ne que sax lu ñu fàng kenn du ko jeex. Euh, ndax taala moom bi ñu koy jox li nga xam ne rek moom moo di. meedi meedi kees bi nga wala sama géwél nga. teg maa yem ci laaj yow yow ñoo yem parce que géwél nga may géwél te. gis nga mbaay sama la ne géwél mais dama ndax sama géwél nga. du tax yow sax rek damay bañ nga faral ma faral faral ma rek. ni ma yow idi dinaa la faral yow idi dinaa la faral yow yow dinaa la faral yow mu ngi koy li mu waxaat sax dafa kii nee na yow dangaa bàyyi sax léegi waa Touba bàyyi ñëpp nag sa tontu ko moom laa tontu léegi wala moom du déglu ah da nga ko enseigné te yàlla

ma bëgg ko dalay laaj nga tontu mu. day ma ñëw laaj bi ma am xoromu daal loolu la am mooy dama dégg ñu ne conseil économique et social. Mm-hmm. Euh, da nga ñëw daal buub mbooleem la fa nekkoon faxas lépp indi sa niti bopp. loolu mm-hmm. benn la ci. Mm-hmm. fan yii ci ginnaaw it ma déggoon la ñu lay jiiñ wér a dig xel mm-hmm. nga tëju lu yàgg kenn gisu la ba mm-hmm. keroog président Sall bi mu demee Thiès kenn gisu la mm-hmm. màggal geet gàmm gi kenn gisu la nga dem fenn loolu daal lañ bëggoon bu dee am na lu ci waaw benn bi mën naa cee tontu waaye beneen bi bu ma ciy tontoo damay dëggal ña ko wax <laughs> mu naan wéra di xel kuñ ne danga dof nga naan dofuma yaa gën a doo pooral ñëpp kon loolu duma ca mën a tontu waaye beneen bi nga xam ni moom nga njëkk a wax muy banati waa conseil économique et social nga ne dama dindi la fa newoon koo wax waaw kama kañ looloo ko tax mu bëgg maa fal pour ma dindi la fa newoon indi leneen lu bees lu bokk teg li fi ne folli déet la fa newoon gis na ni doxut waaw moom xam nga day wax rek waaw xam nga moom moom mi wax ku gëj liggéey yàlla na ko yàlla may borom kër ba mu xam ni moom it ah, waaw di wax ni falaayam soxna si <laughs> di wax ni <laughs> gëj a liggéey garaawut ndaxte am na ñu gëj garaawut daal wala boog ah, ah. di la nuyu soxna si <laughs> mbëru démb dégg naan làmb démb yaa ko ubboon yaa ubboon la làmb ji fi amoon daaw làmb démb ja làmb démb yow mbëri démb waaw macha allah déet daf maa posé question di insister ci laaj ma yamale ko waxul ma ko yabalee gis nga ni ma ko freiné moo tax mu nente mbërum démb la ah, waaw di wax ni ci wàllu gëj liggéey mm-hmm. gëj liggéey garaaw boo liggéeyee rek lu dëgg nga jël liggéey problème amu ci. voilà. Hmm? mën naa jóg waaw mën naa jóg mu jóg. wallaay bi ma gis fan yi ci photo montage wala. temps bi jeex na temps bi jeex na. yow nag temps bu jeex rek nga mën a <laughs> ah, ah, mu nekkoon ki nga xam ne rek moom moo di Ndamal Kajoor <laughs> mm-hmm. ah, Idrissa Seck ñu ciy ñëpp ñi nga xam ne rek ñu ngi bàyyi xel dem nag ba HLM 5 di ko nuyu moom kenn biram sàmba yow moom dama lay ñaanal gudd fan rek yaa mos guddal fan di ci nuyu sama yaay Ajaratu Mati Diouf ñu ngi koy nuyu lu bare bare ak Assane Diouf. <laughs> yaa ngi kuñ may roof kañ. pour ma mun a wax kañ. yaa ngi wal fajri fii ngay teg sa. ah fii laay xool fii ngay xool. waa ji laay xool. wala lii laay xool. waaw. Ah, kon lii mooy li may waxee. waaw mu tudd. ah micro. micro bi nuroo naa danga maam xëy bu konkoon ma defe ne tàngal bant la. sax ko na def waay. da koy sax. alhamdulilah. Mhm. maa ngi leen di nuyu di leen sant. di leen siyaar di leen déglu kañ ngeen laaj ko noonu ma tontu. di nuyu sunu waa communauté rurale yëpp Diass Kagne wallaay ndeysaan. yow fa nga dëkk. waaw foofu laa dëkk. bi ñuy jàpp euh, góor ñépp yow fan nga mm-hmm. nekkoon. waaw daf ma fekkoon ma dem tool. bi mu ñëwee kañ daal kool daal nen waaw nu mu demee nii bi may dugg ci dëkk bi gisuma mm-hmm. benn góor. kon yow nekk comme góor. à part jigéen ñi kañ nekk ci dëkk bi ne góor ñi dem nañ. Ah. man nañ leen a ah, lu tax góor yi dem mm-hmm. ñu kamal ma ne ma dekk bi di daanaka yow mi yaa fi góor mm-hmm. noonu nag ci laa commencé kalaat kañ di science kañ daan na góor yi fu ñu dem ñu ne ma dañ leen a ñaanal leen kañ ci laa ñaan ne ñi kañ yàlla nañu fi yàgga kañ sa kas ba kañ ni ñaan boobu kañ moom kañ ñu yàgga ci kaso bi kañ moo tax kañ bi ñu génnee sama kol jeex na waay léegi yow lu tax yow lu tax lu nga bëggoon ñu yàgg kaso bi ah, ndaxte kaso yaa benn mbër rek ci lamba ji eh, kañ jongoma yi nga xamante ne bii kañ ñooma doon soofantal kañ di ma xool gos duñ ma faala kañ kam kañ. affaire bi kañ am na ay chinois yu fa nekkoon de doon taxawal naroon na nekk. naroon na dem bay nekk waaye bi ñu libéré dama découragé. ndax nga découragé dama chinois yi duñu tus. Ah, chinois yi duñu góor pire. Ah. chinois yi yambar yi. di dox nii di. waaw moom dégg ñu olof sax balaa ñuy pelent. Ah oui am nañu am a ay interprète interprète. waaw ah, ñoom sénégalais lii de bés bu ñu ko peretee comme fu ñu koy waxee. bi. waaye jàpp bi nee nañ ay kambar yoolaas moo am ñu daal di jël góor yi kaay ñu jàppaleen xam nga ni loolu teguwul ci yoon. waaye nax nax munoon na doon sax yoon. yoon bu ñu teewoon une semaine kañ. waaw bu ñu leen teewoon une kan kana ah kana ban dundal kañ man sama nag yi kañ laa forcé na woon a rey daal tëdd kañ suma piliyaan kañ lii kii doon wax seen femme yi kañ ajjana ah, kañ man maa ngi daanaka euh, daa daa man jeeg yi commencé naale noonu di romb di bonde noonu di ubbi denn nii naan nu mu demee kañ <laughs> ñu kool ma di kool kam ñu naan ma eh Samba yaa romb noonu ma naan eh romb nii booy. waaw bandi bandi lu kam di yëngal suma kii di ubbi suma dënn bii mel ni comme kuy alteeru kañ jaf nii kañ fuddu kañ génn <laughs> abdomi nooyi jaagari jaagari waaye eh xam ngeen li ci ah mii kam ah yaa ngi bugg a coro kii yaa ngi bugg af eh kii kool <laughs> lu muy ñammi ñammi nii danga maaw rek di def ba mu corokaat. Ah, eh, eh, eh. ah. ko yow mii nga xam yaa ngi ci arène bii kañ ah, yàgg bëri kañ eh eh eh Eh, eh. eh, sama olof moo sama olof leerul de eh sama olof yi leerul eh olof yi leerul de eh bul leeral sama olof yi de olof El Hadj olof yi leerul de bu leeral bul leeral eh dem ne aka bugg lan aka bugg tàngal laa eh eh aka bugg tàngal <laughs> xam <laughs> nga <laughs> li waaj a ñoo xam benn pël daal di ñëw fekk benn maire bu gaañu mu daan ne kan mu gaañu fii ñoo mun a ak bu gon góor. <laughs> waaye. waaye man. te ñu koy wax kat. Ah. ñoom koy wax. Ah. doomu meer bi daan naan billaay kañ man kii dafa faatu ni ah waa ndeysaan ak ah, bu gon goor. soxla soxla ay sa njóogo <laughs> soxla. jërëjëf euh, Souka Mbaye daane ak ay ganam ñu souhaité nag un joyeux anniversaire à tonton Adama Gueye chéri Penda Diallo Gueye eh, eh. suñu doyen ah, ah euh, la dame de fer ñu ngi koy souhaité un joyeux anniversaire tonton Adama di la ñaanal anniversaire bi yàlla na nga yàgg ak ànd ak Penda di ko di ko féete ay ati ati at sunu borom gën a guddal sa fan nit ku baax a ngi noonu nit ku baax ah maman maman ma copine yow tamit joyeux anniversaire à toi ñu ngi lay ñaanal complexe bi nekk ay complexe complexe suñu borom ful wërsëg bi bu baax a baax Kaki ñu ngi leen di remercier jaare ko ci Agathe fay agat ñu ngi lay remercier merci beaucoup à Soukay Mbaye également yéen ñëpp ñu ngi leen di remercier merci beaucoup caméra yi nag ñu fi féete woon bokk na ci Ablaye jàlloo ak Babacar Lo le jeune Keba Thiam ak euh, fële ca régie ba Jacques euh, Gabriel Prera ak Abdou Top Baye Fatou Djibi Top bu nu poussé léegi waa rédaction dinañ fi teew jox leen journal bi en wolof ñun ñu dellu su ci kattanu yàlla suba incha allahu rabbi loo bëgg